ah asalaamaaleykum mbokki déglukat yu tedd yi yëngu-yëngu boo gis la ko yëngala ko ëpp doole ah nit ki nag loo waxadi waxadi boo gisee nen sañ ngaa ne nen a ngi comme niñ ko waxee rek ku la defal teraanga il faut nga delloo ko njukkal ki may delloo njukkal nag mooy waa Seydou Ba Video Production ñoom ñi nga xam ne ah, ñu ngi dimbale doomi Gambia spécial Seydou Ba mi nga xam ne mooy borom production bi ah, Seydou Ba mu ngi wër ci àdduna si di wëy ci diaspora bi ah, di jàppale artistes yi di jàppale jaaykat yi mu ngi am palace bi ñoo wax euh, bantaba bantaba nag boo ko déggee mooy fi nga xam ne wax jeeg coow leeg jambaayoo yeeg pël yeeg joolaa yi ñëpp fa lañ daje waaw bantaba mooy soo ko déggee ci soose mooy fi nga xam ne foofu la ñuy toog di waxtaan ah mu ne nag ñoom ñooy bantaba bantaba ndimbal la ci réew mi te gaa yi déglu leen ku ci déglu danga nga dégg te da nga ci amee njëriñ lii nag soo gisee Seydou Ba def ko nekk na mbir moo xam ne daf ko yàgg a waxtaan ak man yàgg koo joytu ne moom day dafa bugg a ñëw di suqali réew mi di dimbale waa réew mi di jàppale waa réew mi te emale ko wu sax ci réewi Gambia rek Seydou Ba video production ñoom dañuy dem di jàppale ñi jógee Nigeria ñu jógee eh, Congo ñu jógee fépp ci africa pour yombal la leen eh, seen xew yi la faa xew te moom emut sax ci video rek de déedéet Seydou Ba emut ci video rek dafay def eh, musique dafay luye ay set. dafay def dije moom ci boppam dafay vidéo ba pare nag rax si dolli sax ñoom fi mu nekk nii amuñ benn vidéo de déedéet mu ne dafa jëndaat beneen bu espex pour ki nga xam ne mooy gaajo di di jabaram moom tam léegi sax daf ko soppali waaw moom it ci mbir mi la te ñu ngi am yeneen programme yi nga xam ne ñu ngi koy def muy e, diine ak jamono diine ak jamono nag nekk na programme boo xam ne daf ma neex parce que Eh, léegi-léeg daf koy defa imaam imaam bi nga xam ne mooy suñu imaam raati fii ci ci ci ci Oslo mu nekk koo xam ne suma euh, suma su juumut sax nekk na borom xam-xam boo xam ne nii dafa làq xam-xamam waaye nag ñun ñi nga xam ne ñun am nañ cofeel ci diine ñun xam nañ lim xam ci suñ foog-foog xeebuñ ko benn boor te li muy liggéey rafet na waaye nag euh, Seydou Ba kon ñu ngi koy gërëm parce que li gars liggéey ci weeri koor bi am na mbir yoo xam ne nii man bi ma ko déggee sax euh, dama kontaan ci suma man ci suma bopp personnel yi parce que xamal nañu loo xam ne ni ñun yu bari xamuñ ko woon ci suñ bopp te yombal na maam mi nga xam ne mooy liggéey ci wàllu diine ah yombalal na ko liggéeyam kon Seydou Ba ñu ngi koy gërëm di ko santa euh, di ko tatagal di ko wax ne lii yal na ko fi yàlla yàggal ah, rax si dolli nag moom it gaari gaajo moom mi nga xam ne mooy madamam eh, moom it mu ngi prépare ay mbir yoo xam ne nii mu ne man sax dinaa ca ne ah ñoom nag soo gisee seen mbir neex ma ah, ñoom dañ ne ñëpp teew leen te kenn bu sa bu si génnee sa bopp ci nga mbir yooyu nag boo ko déggee loolu mooy te dafa wax lu daw yaram tey mu ne ma gàmbiya dafa nekk réew moo xam ne dafa tuuti ah ñun mënuñoo effort sax pour génnee nit ci société mënuñoo effort sax ñàkk benn ba bakkani doomi aadama parce que ñun bariwul euh, te sakkanuñ te nekk nañ ñoo xam ne nii suñ kilifa yi nit ñu yaree mooy xamuñ xaaj ak seen waaye xamuñu woon kii pël la xamuñu woon kii joolaa la xamuñu woon kii dem nañ ba nga xam ne sax kilifa yi boo dooroon sa dëkkandoor sax boo nekkee xale dañ la naan kii bu ko laalati saraka la parce que ñun dëkk bu yàgg sax mbokkaa nga ca kon fekk kilifa yi noonu lañ la yoree suñ demee ba réer nañ delluwaat fi nga xam ne foofu la ñu kilifa yi bàyyi woon ah moom lay gërëmee waa Seydou Ba video production ak ki nga xam ne mooy jabaram mu ànd ak moom Ramsiya nag moom mi nga xam ne mooy def yooyu noonu moom moom euh, euh, dañ koy dañ koy berndeel waaw Ramsiya dañuy wax law la cat rek su ma la ba làmmeñ waaw dama xam ne nag bu ma gàddu woon tama gi il faut ma yëngal ko tuuti waaw waaye Ramsiya moom it ñu ngi koy gërëm di ko santa di liggéey bu rafet bi muy def noonu yal na ko ci yàlla jàppale ak suñu yeneen doom yoo xam ne Eh, ñu ngi yëngu ci yii ah, kon Seydou Ba Video Production maa ngi leen gërëm di leen santa si seen liggéey bu rafet bi asalaamualeykum wa rahmatullah taalaa wa barakaatuhu